asalaamaaleykum télévision Futur Média sant leen gërëm leen ci àndandoo beeg ñun benn waxtu euh, jot na xibaaru digg bëccëg yi bokk na ci mbirum euh, Petrotim ak contrat pétrolier yi ger gi ñuy njort si ni da ca am Babacar Mbaye Ngaraaf tey ci kanamu enquêteur division des investigations criminelles moom moo jiite euh, mouvement Alliance Sauver le Sénégal ci jamono joo xam ne mbootaay bi ëmb maire yi ci Sénégal ne ñoom ñu ngi jàppale bu baax a baax seen njiit di Aliou Sall te ñu tudd ko ci mbir moomule métitu producteur soble yi nekk fële ca Gandiol di wéy ba léegi ñoom daanaka ñàkk nañu lu bëri lu ci mel ni uh, koppar ak uh, seen soble soos li ginnaaw ay ji yu bon yu ñu leen joxoon naam am na benn mission uh, ministère de l'agriculture ak tamit société bi leen jox meñ ji yooyu nga xam ne demoon nañ foofulee ca diwaanu uh, Gandiol bokk na ci xibaar yi ba léegi tey jile uh, mooy bés bi ñu jagleel àdduna wërngal uh, këpp xeex yàqu-yàqu yi am ci suuf si ak li mu mën a jur ci mbay mi ak li di bekkoor Sénégal fan lañ ci toll ak yan jéego lañ ci amal dinañ ci waxtaan ak sunu gan di professeur François Mathieu agropédologue la xam-xam màcc ci wàllu woowule kon nekk fële ci institut des sciences de l'environnement lu toll ci ñaar fukk ak juróom yu bàyyeekoo ci ay réewu Afrique dajaloo fii ci Ndakaaru ndakaaru waxtaanee lii di xeetu métital yi ñuy teg jigéen lu ci mel ni ay xarafal wala bokk ay sëy yu teel ñu ciy waxtaanee bëri na ay mbootaay ak ay gouvernement seenu mbëbët nag mooy fileeg atum 2030 ñu fexe ba lool dootul amati ndax li ñu nemeeku mooy fii ci Afrique fukki soxna yoo jël daanaka ñeent yi dañoo sëy laata ñu am fukki at ak juróom-ñett mbokk yi loolee tënk la nes tuuti ñu yaatal ko. gannaaw bañ leen euh, nuyuwaatee ba noppi enquête bi ñeel Petro-Tim muy euh, contrat pétrolier yi ñu joxe fii ci euh, réew mi ak liñ naan dañ ciy njort wàllum gerte tudd ci sax Aliou Sall di rakk ci njiitu réew mi Frank Timis ak société britannique bii di BP kii di Babacar Mbaye Garaf moom nag tey jile dañ ko wóolu ca division des investigations criminelles moom mi jiite mouvement Alliance Sauver le Sénégal daanaka moo nekk kii njëkk dem fële ci office national de lutte contre la la corruption OFNAC ngir déposer fa benn plainte du ñàkk dinañ ci dellusiwaat yeneen jotaay xibaar ci mbirum Petro-Tim boobule ba léegi mbootaay bi ëmb maire yi ci Sénégal ñoom nag nee nañu ñu ngi jàppale bu baax a baax seen njiit Aliou Sall mi ñu tudd ci dossier boobule ña ca bokk nag ñoom di waxit ci Barthélémy Diaz mi ne tekki na nombol tànkam ci AMS boobule maanaam bokkatu ca ñu ne ñoom jotagu ñu benn këyit buy wane lu ñu mel dañ doon jàkkaarloo taskatu xabaar yi ñoom waa AMS ñu déglu ci Aïssatou Gueye Baag Youssou Baro wax ju ñuy faral di nemmeeku fan yi lee ci l'enquête bu chaîne britannique BBC génnee jóge nag ci opposition ak parti politique yu bari association des maires du Sénégal daal di joxe xalaatam ci wax yooyu leen président AMS defut njomme ci alali maire wala alalu AMS te li ñuy tuumaal ci Aliou Sall xam nga lu Wolof Njaay wax ku mere mere bàyyi song doom est que leer na waaye xol xasan na taw wokkeesu ko ndax baaraam jotu ko njiitu réewum Sénégal fi mu teg boppam daa mingoog fi ko Sénégal teg daa yenu ci fa ko yàlla teg nee na ku ne na wax lim xam te am firnde nan ko joxe ginnaaw bu maire de Mermoz annoncé wee lii di démission wam ci association du maire du Sénégal ñoom ñee daal di rek andi ay leeral. waaye tontu bi li ma ci njëkk leeral mooy yéen waa presse yéen a ñu yëgal ni Barthélemy Diaz dafa démissionné ci association de maires du Sénégal li ko waral mooy démission xanaa war na am lu ko mandargaal ñun nag ba fii ñuy wax nii. AMS jotul officiellement mandarga bu wax ni moom jóge na ci association bi loolu jar naa leeral kon nag ñun lañ cay wax mooy d'abord Barthélemy Diaz ñëpp am solo ci association bu mu munti doon ndax ñëpp a ci yem maire la comme ñun am na responsabilité wax ne day génne association bu mu bokkoon loolu am na ci droit waaye il faut ñu fas fàttali rek ni. Barthélemy Diaz mësul wàccoo ak benn wareef ci ku bokk ci kuréel ngir muslu ci fitna ci ndëkk mi moom association des maires du Sénégal di waajal rek ci fan yii la di ñëw ab ndaje ngir wane rek seen soutien ci nguur mi. aujourd'hui euh, beneen euh, mbootaay mooy bi ëmb ñi di commerçant ak industriel yi nekk fii ci Sénégal ñoom nag ëllëg euh, ci talaata gi dañoo fas yéene def li ñuy duppee ville morte ci réew mi yëpp maanaam du ñu ubbi benn ci seen magasin li ñuy naqarlu mooy benn dogal bu douane sénégalaise jël yokk ñu ne seen i tarifu dédouanement ci yenn ci seen i marchandises waaye ñu ne du ca dal duñ ko nangu Abdourahmane Silla moom mooy secrétaire général association boobule ñu déglu ko samedi. Il s'agit d'une mesure appelée note de service, prise par la Direction générale des douanes, consistant à fixer des prix de façon unilatérale et injuste. Et si toutefois on appliquait cette mesure, ça aboutirait sur une situation d'inflation des prix de nature prise pire qu'une dévaluation. C'est à ce point que l'heure est grave. Il convient maintenant de préciser que nous, commerçants en activité de tous les secteurs, de toutes les régions, ne participons pas à des négociations par rapport à l'applicabilité de la note de service. Nous, le nous la considérons comme inexistante parce que insensée. Du coup, nous exigeons qu'elle ne soit pas rangée dans les tiroirs, mais plutôt qu'elle soit brûlée. Compte tenu de tout cela, le mouvement est décrété le mouvement décrète un mot d'ordre de grève de 24 à partir du mardi 18 juin 2019 dans l'ensemble du territoire national. C'est Sénégal mort avec fermeté des magasins et dans les marchés. di jéggalu mbokk yi ci élément boobu lee nga xamante ni en français la du ñàkk kon wolof bi dinañ ko dégg ci yeneen jotaayu xibaar waxtaan wu yaa bi ñu sóob ci euh, réew mi ñëpp ci bokk euh, kon ñii di béykat yi nag ñoom am na ñoo xamante ni dañoo mer ba futu muy ñi bokk ci confédération euh, paysanne du Sénégal ndax nee nañu daal yëf yi dafa am ay gàllankoor yu bëree bëri waaye am na ñetti ponk yu leen yitteel loolu muy li nga xamante moom la ñuy dund ci kaw gi ñu ne ñu indi ci ay saafara seen i jafe-jafe ak bi ñu ne dañ ko fiy teg ak suuf si nga xam ne it yenn saay dafay bëri ay jafe-jafe Abdoulaye Arona Ka bokk ci ñoom ñu déglu kook ak Salif Sow. population du Sénégal téeméer boo jël juróom-ñaar fukki waa àll bi la ci biir dialogue bi nag ñu gis ne euh, vraiment am na euh, fossé bu rëy ah pax mu rëy mu nekk diggante réew taax yi ak réew àll léegi ñu ne côté boobu nañ ko seet. léegi deuxième point bi. biñ ne bu ñu demee foofu dinañ ko mën a waxtaanee mooy suuf si euh, commission de réforme nationale at yëpp ñu ngi liggéey mais ba léegi xamuñu li muy liggéey ci lan la féete. Euh, ñetteelu ponk bi nga xam ne dañ ko dañu ne dañ koy waxtaanee mooy chambre d'agriculture au Sénégal le président Macky Sall kat lancé woon na la nga xam ne ñun ñëpp bi mu commencé dañu tàccu parce que dañ ne woon na ñu wàcc ci béykat yi laaj leen ban façon chambre agriculture la ñu bëgg a taxaw béykat yi waxal ko seen bopp. wër nañu les quatorze régions avec euh, l'ex-secrétaire d'État Moustapha Lo jaata def nañu ay CDD ak gouverneurs yi def nañu CRD ak gouverneurs yi CDD ak préfet yi mais ba léegi mbir moomu kat euh, fa la aw tàbbi géej xamuñu euh, fan la yem te boo xoolee ci Afrique juróom-ñetti pays yi fi nekk juróom-ñaari dëkk yi am nañ seen chambre d'agriculture Sénégal rek au niveau de l'UMOA mooy dëkk bi nga xam ne amul chambre d'agriculture officiellement nag amuñu lu ñu convié ci dialogue lu doon wax rek ay nit dem fa mais ñun demuñu dañu toog. ci wàllu mbay mi ba léegi rawatina fële ca diwaanu Ganjol ak ñi bay soble ñoom nag ay semaine a ngi nii ñuy wax ci jafe-jafe yi ñuy dund muy ay ji yu bon ñu leen joxoon ba tax na seen soble gi dara baaxu ci ñu perte ca lu bëri booy xayma sax ci koom mi ngi toll ci juróom benn téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñetti million naam am na benn délégation direction de l'horticulture bu fa demoon ànd société bi di Tropica Sem ñooy ñi leen jaay kon ñu ne ah, ji ju bon yooyu le dinañ ko dégg amaana ci yeneen jotaay xibaar niñ leen ko doon waxee sànq suñu gantay jile euh, professeur François Maty lay wuyoo nekk ab agropédologue ci institut des sciences de l'environnement tey jile mooy bés bi àdduna wër wërngal këpp di xeex li ñuy duppe désertification maanaam suuf seek jafe-jafe yi ci am ak lu mënti doon ak lii di bekkoor euh, professeur matti ñu ngi lay nuyu Mhm. Euh, professeur euh, gis nañ ko euh, ñu ngi koy waxtaanee sànq ci wàllum mbay bi kon suuf ku ko wax suuf wax mbay gis nañ ni wàllum désertification bañ ko waree bañ ko dalee wax ci réew mi ba léegi yàgg na ñu ne nit ki mën na koo def wala boog sax mën na loo xamante ni ci jaww ji lay jógee ak lu ni mel fii ci Sénégal lu ci ëpp lan lañu fiy nemmeeku. <clears throat> waaye problème <clears throat> problème bi mooy suñu zone bi suñu zone climatique bi désertification am na fa. et c'est normal parce que ñun ci zone kii lañu nekk euh, Sahel lañu nekk taw bi bariwul taw bi taw daa daa néew tuuti population yi paysans yi maanaam ñoom daal seen stratégie daal mooy daal def ay développer ay méthodes yoo xam ne mun nañu béy foo xam ne bariwul ndox. Hmm. yooyu suñ paysans yi. ak suñu techniciens yi am nañ ko loolu loolu la ñuy doxale ba léegi. Ah, ndax am nañ ko parce que des fois dañuy gis yenn réew lu ci mel ni waa Israël ñëw fii di ñu jàngal yenn technique yoo xamante ni xaj na moom la ñuy jëfandikoo ngir mbay bi gën a yomb rawatina ci ah, suuf yi nga xamante ni dafa wow koŋŋ. ngir jiw fa dara mu ñi dafay nekk lu jafe. waaw loolu moo tax ma ne ñu invité parfois Israël yi ñoom seen dëkk. à peu près comme suñu. désert la daanaka ñoom. désert mais dañuy développer seen agriculture très bien. moo tax ñu jël seen jël seen seen expérience bi pour ñu ñëw won ñu ko naka la. dañuy ñëw am nañu ay techniques yoo xam ne dañu ko développé yoo xam ne pour mbéy mi gën a baax pour gàncax yi gën a kii baax. dañuy jox ay télé ay ay technique yoo xam ne daal tuuti ndox rek ngay. mooy la ñuy sotti rek goutte goutte rek mu baax. goutte goutte bi léegi Sénégal bari na. Mhm. paysans yi bari léegi ñu ngi appliqué. Euh, laaju sànq bi professeur. mooy li mhm. ñuy wax désertification euh, suuf seeg ni mu amee jafe-jafe naam mën na nekk ni nit moom moo ko def wala sax nag ci phénomène yi euh, maanaam ci nature bi la jógee et tout fii ci Sénégal lan moo fi ëpp maanaam bu ñu demee ba gis ni suuf si am na ay jafe-jafe dafa mhm. di firndeel ni nit ñi ñoom ñoo ko yàq wala. non non surtout ñun parce que suñu zone bi zone sahélienne la hmm? lii moom suñu zone climatique mënuñu si dara. mais nit ñi def nañ ci dara mais nit ñi ñu ngi gëstu maanaam pour pour euh, def ay gàncax yu baax. Hmm. mais zone bi cause bi daal climatique la. Hmm. foofu moom climat moom mënoo changer climat. <laughs> yàlla moo la moo la climat bi. luy gën a am maanaam mooy développer ay techniques yoo xam ne si climat woowu ah di nga mun def dara Israël loolu ñuy def seen dëkk ma gën a woow Sénégal. Hmm. mais dañu am ay techniques yoo xam ne vraiment euh, gàncax yi mun nañu mun leen leen def sans problème. ndax ñun fii Sénégal mi ngi dox bu baax yenn saa yi nga dégg baykat yi ñu koy ñaxtu lu bari dañuy dem ba euh, benn jamono dañuy bàyyi euh, tool yi ñuy bay dem feneen ndax foofu mënatuñu faa def dara ñuy wax tam salinisation des terres maanaam dem ba xorom si dugg ci biir suuf si te foofu moom dara mënu faa am. waaw dëgg la parce que effectivement suñu zone bi bayul bayul ndox taw bi bayul oh, bu ñàkkee taw taw moom xorom bi day yéeg loolu moom dina am Sénégal bàyyi na trop. xool xolam bi mu yéegee ah dootoo mu def daal mais comme ni mu la waxee rek am nañuy technique yoo xam ne mun nañuy def gàncax sans mu am problème hmm. professeur Maty euh, ci boori anne année 90 Sénégal daal dinay élaboré benn programme national boo xam ne mhm. dañuy xeex wàllum désertification boobu ba léegi yàgg na def na ñaar fukki at ak lu ko ëpp naka la évolué maanaam ci euh, at yooyu le programme boobu lee am na yu bees yuñ fi tëral ndax euh, am na jur na liñ ci doon séntu am déet bon li ma si xam daal mooy contre la désertification mooy ban boobu ban boobu bu ñu def si Sahel bi yëpp boobel defe naa moo si taxaw ba léegi de. si hmm. loolu la ñuy compter mais pour lutter contre la désertification ñàkk nu mu tuuti ay techniques culturelles yu baax waaw. Hmm. technique yu adapté sur seen zone mun zone sahélienne mun loo ko changé adduna yàlla adduna daal noon noonu la bindoo. Hmm. lu gën a wóor daal mooy nga développer ay techniques yoo xam ne di nga mun a béy si situation boobu boo xam am ndox daa jafe. Hmm. voilà. à part technique yi nga wax sànq ni yan yeneen moom moo am. bon y si aussi bon ça c'est sur le plan sur le plan loolu mooy li ma wax léegi sur le plan technique la mooy mun na ñu aussi développer sur le plan social. Hmm, maanaam sur le plan social euh, si la bopp organisation bi ah organisation naka la ñu organiser dañu bari ay kii ay ay gàncax yu ñuy yu ñuy defar am na dugub. am na gerte am na ak leneen ñaambe ñe leneen léegi nag suñu choix bi nag il faut choisir la bonne période yoo xam ne mun nañuy teg dugub bi gerte ainsi choix période bi moo koy. maanaam dañoo war a xool lu nekk ak jamono jiñ koy béy. voilà par exemple ma wax la. Mhm. Euh, ni ñuy def léegi dugub dugub moom dañ koy teel ki kii dugal waaw pour que bu ndox mi ñëwee rek. dugub bi. gaaw profité a kii sax. Hmm. waaw ça aussi buñ ko de c'est une bonne technique. y a aussi le fait que le gerte ak ak gerte ak yeneen yi dañ koy def après. Hmm? donc c'est pas de faire n'importe comment gars yi dañuy tenir compte aussi ci calendrier culturel paysan yi mënuñu à la fois ñetti ñetti kuréel ou bien ñetti culture yooyu commencé à la fois. ñoom béykat yi moom xam nga loolu moom ça dépend de de de de béykat yi. Mm, waaw ñoom béykat yi ci boppam ndax loolu miin nañ ko. miin nañ ko léegi. Mm, miin dañ koy appliqué léegi. Mm. dugub yi la ñuy gën a dañuy teel a ji dugub après xaar bu kii taw yi bu commencé bu ñëwee daal di gerte ak yeneen yi. technique la boo xam ne paysans yi ñoo ko développé. Hmm. am na maanaam. d'accord professeur François Maty euh, Grande Muraille vert nekkoon a benn projet bu rëy boo xam ne hmm. dooroon nañ ko fii ci Afrique mu ñeel hmm. euh, Sahara ak euh, Sahel. boobu ba léegi dafa mel ni am na sax agence bu ñu fi teg mu koy lijjanti ndax loolu tam lañ ca doon lañ ca doon séntu am nañ ko ci ci projet boobu boobule. projet boobu kii moo ko doon dirigé le professeur Dia. professeur Dia moo doon développé du côté sénégalais daal moo doon defal moo ko doon dirigé géej naa dégg nag ñuy wax problème projet boobu. ndax échec la. non bon mënu ma na échec la mais géej dañ fi géej wax daal. mais yéen ñi ci yéen ñi nga xamante ni da ngeen ciy liggéey waroon ngeen ci en principe di ci am yenn information di dégg ndax sa avance ou ça avance pas. ah bon ñu koy doxal. ñoo woo information yi mais ba léegi kàgg waxatuñ ci dara ba ndax xamoon daal. Hmm. waaw. y a aussi peut-être dafa am problème politique loolu moo tax. ndax réew yi mu yi ko seq moo bëri lu toll ci ñaar fukk yaakaar naa su ma jóg. en tout cas Mauritanie ñu ngi siy yëngatu ba léegi. waaw. Hmm. Mauritanie ñu ngi siy yëngatu ba léegi. lan moo tax ñii di ci yëngatu ñii ñii di ci des alors que bu ñuy xool bañ koy teg ngir njëriñ. Hmm. ci réew yooyu yëpp la maanaam hmm. réew yi nga xam ne daf ciy jaar yëpp la. waaw xam nga loolu c'est très compliqué le problème ne pas le problème aussi politique. waaw pays bu nekk am politique am koy doxalee. ou bien nu mu tuddati responsable yi de temps en temps ñu changé ça de la politique aussi. waaw ils sont obligés de changer de responsable dès que le responsable bu ñu ko changé rek mu am ñaxas ñaxas tuuti. waaw mooy mooy tardé affaire yi daal defe naa la. d' accord euh, jërëjëf professeur François Maty di la sant di la gërëm mu nekk agronome rawatina xam-xamam màcc ci euh, suuf seeg euh, jafe-jafe yi mu mën a am tey jile muy bés bi ñu jagleel a xeex lii di bekkoor ak tamit suuf beeg jafe-jafe yi mu am rawatina ci dundinu askan wi sant la gërëm la professeur ñu waxtaanee leneen ba léegi ci wàllum alam bi démb nag ca diwaanu Yoof dañ fa amal benn bés boo xamante ni dañ doon defaraat peggu géej bi di ko

ay mbalit yu ñu tuur ba ci sax ay gravats yu ñu fi bàyyi lii lii neexul ci li nga xam ne moom moo di gis-gis ba tax association pour la promotion économique culturelle et social bu yoof daal di jël mbir mi daal di koy def ay fi boppam ñi lee di sensibiliser askan wi. cetu place plage bi dañ ko soxla parce que si plage bi si géej gi la jën yi di jóge donc dafa war a set. tey li ñu wër moo ñu xaw a jaaxal. lim ñu jaaxale mooy dafa dem ba jéggi dayo mënatuñ nooyi mënatuñ dem géej mënatuñ dem fen mbalit mi nga xam ne ñu ngi koy tur ci yile waax lii lii mën na indi ay feebar yoo xamante nii rek dina daanu ci askan wi. feebar yi muy indi mooy feebar yoo xam ne feebar yu dafay génne kersa parce que nit bu ñëwee toog ay moroomam di wokkatu wala wala deram am neneen nu mel dootu nangu génn. jàngoro yi ñu ngi fi euh, salte bi mi ngi fi boole nit ñu dem ba. yaakaar ne ñoom ak salte yi ñoo war a dëkk te loolu doy na mu mel ni wax yi nekk ci senegal foo ci dem lu ni mel lay jànkonteel ba tax càmm alam gi lu war la coppiteek yéen comportement itam boo dëkkee stade Tefes gi di tuur keneen ku fay tuur doo ko mën a tere donc ñi dëkk stade Tefes ñoo war jëkk génn doon seen surveillant bopp parce que tey ji Tefes gi bu setee mu baax yoof gépp la baaxal mais ñi fi dëkk tamit ñoo si gën a jariñ ñu nekk ci ay bés bi nga xam ne moom lañu jagleel wàllu alam gi association pour la promotion économique culturelle et social bu yoof di sàkku ci képp ki nga xam ne rek da nga yeewoo tund wi gën a farlu ci li nga xam ne moom moo di waax yi ngir rek ku ci nekk mën cee gis sa bopp ca Sédhiou moom askan wa dëkk ca diwaan boobee ñi eh, duppee Médina Wandina dañoo génnoon di dox doxum ñaxtu ndax ndox bu baax la ñu bëgg nee ñëw réseau bi nga xam ne moom moo leen war a séddale ndox boobule eh, dafa yàqu ay yàqu-yàqu yoo xam ne kenn mënatu koo defar kon faaw ñu wutal leen bu bees eh, ci seen forage boobu lee boobule Mariama Doumbia moom moo yor seen kàddu ci micro Bakary Konté ak Khali Diamé amoon nañ fii forage bu ñu nekkoon ci commuté rural yi forage boobu nekk fii mënul satisfaire dëkk bi ñu dem ñu ñaan Euh, château d'eau ñu am château d'eau bi ñu xam ne château d'eau boobu sax moo gën a gudd bi ñu fi yore woon mais malheureusement xamuñu ndax ñoom réseau bi dañ ko branché ci réseau bu màgget boobu looloo tax dëkk bi ba léegi problème ndox baa ngi fi jigéen yi mënuñoo yendu mënuñoo nelaw guddi ak bëccëg ñu ngi ci teen yi di xëcc ay baag te loolu suñu problème la boo xam ne ku ci feebar sax pour nga faju problème la. parce que ci nga xam ne bu bër setee yow amoo taloo dara sa doom yi il faut ñu naan il faut ñu sangu ndox nit ndox la boo juddee ndox la boo gaañee boo deeyee ndox la kon ndox boobu bu manqué ci bërëb boo xam ne bu ñu daan laaj euh, forage bi booba ñu ngi ne ñu ngi à euh, quatorze mille d'habitants ba tey fu ñu toll nii suñu xaymaan bu baax Madina fa bu ñu eggulee ki vingt mille d'habitants kon jege nañ ko. bu dee addition bi kii bu màgget bi lañ ko branché ñu jàppale ñu ngir yàlla ñu ñëw indil ñu loo xam ne dina mun a satisfaire dëkk bi soxla nañu pompe boo xam ne mun na indi Madina Wandifa ndox boo xam ne fépp dinañ am ndox parce que euh, pompe bu ñuy wax ne numéro 13 la kon bu ñu demee bu ñuy ñaan dañooy ñaan numéro 30 bu ñu ko mënee am ñun loolu mooy suñu soxla ñu woy ci xibaar yi ba léegi fexe ba fii lay kàttuma 2030 benn soxna wala boog benn xale bu jigéen duñ la xarafal muy xeetu métital yooyu ñu leen di teg wala sax ñuy sëy sëy bu loolu moom mooy mbëbëtu association bi ñuy duppee Safe Hands for Girls ñu ànd cek ministère bi ñu denk wàllum soxna yi fii ci Sénégal ci réew mi nag lu toll ci ñaar fukk ak juróom réew ci Afrique ñoom ñoo yebal seeni ndaw ñu ñëw bokk ci sommet africain bu njëkk ñu jagleel xeex mbir yooyu le dañoo seetlu ñi ci fukki jigéen jigéen yoo jël ñeent yi daanaka euh, ba muy sëy amaguloon fukki at ak juróom-ñett Mouhamed Samb Jafara Ba. sàmm ak ak yelleef yu jigéen ñi fexe rek ba ndaw yi nekk ci jàmm gu sax dàq loole mooy waral ñuy xeex li ñuy duppee xarafal jigéen ñi ak mariage yu teel yi ngir loolu nag faaw ñu yore nguur ñi dugal seen loxo.

bi toll jot na rek ñu xoolaat ko. ci Afrique rek dañ ne euh, boo gisee fukk fukki jigéen yoo jël ñeent jigéen ñi dañu sëy avant l'âge de 18 ans. alors qu'au Sénégal dañu wax ne jigéen mën na sëy bu amee fukki at juróom-benn ñu ngi xeex nag pour relever cet parce que yaakaar na fukki at ak juróom-benn dafa teel ñu bëgg pour mu dem fukki at ak juróom-ñett ñu ngi xeex yaakaar naa dinañ ko am jigéen ñi bu ñu jàppalee rek ba seen santé parce que fléau yi dafay jàpp jigéen ñi seen santé ba seen taxawaay dafay des ñu vraiment ñu bëgg ci taxaw pour que loolu deñ mbooloo moo di doole ba tax na ñëpp ñoo xamante ni si nekk nañ fii ci Africa ñoom jigéen ñi di leen woo ñu dugal seen loxo ci xeex bi di xarafal jigéen ak sëyu teel yi ñun Euh, mutilation génitale africaine yi ñoo ko war a njiite loolu moo gënoon na tax ñu buggoon événement bi ñu am ko Sénégal ngir genre événement yi gis nañ ko ci àdduna feneen waaye du africaine yi ñoo ko njiite waaye ñun dañ bëgg a ñëpp àndandoor bokk benn baat ba pare ñu indi loo xamante ne dinañu jox évidence buñ bëgg a pour 2030 sax buñ fa àgga. lu toll ci ñaar fukk ak juróomi réew yu nekk fii ci Afrique ñoo ànd ngir xeex lépp loo xamante ni si dafay gàllankoor xale ndaw yi ak jigéen ñi pencoo bu njëkk fii ci Afrique ngir xeex xarafal jigéen ak sëyu teel yi nekkoon daje bu am solo ci wàllu kaf ak ree xale yu ndaw yi am na yu ñu leen di teg ci mel ni di leen faatu wala sax dem ba di leen euh, di leen sàkku wala sax dem euh, ba di leen euh, faat démb mooy bés bi ñu jagleel journée de l'enfant africain waaye nag dañoo jàpp ni njaboot yi ci boppam ñoom ñoo ci war a jiitu laata état bi di wax loole mooy gis-gisu Talla Ndiaye di commité jiite comité départemental ngir sàmm xale yi foofule ca diwaanu Ziguinchor ñuy woy di ñaax rawatina waajur yi ni bu vacances jotee ñu bañ di jël seen doom yi di leen yónni ci mbedd bi ñuy dem di jaay ak lu ni mel moom Talla Ndiaye ñu déglu ko ak Boubacar protection de l' enfant parce que boo jëlee acteurs yi nekk ci protection de l' enfant yëpp donc mën nañ liggéey liggéey bu sell mais protection bi c' est d' abord au niveau famille na parent bi di diglu xale bi xale bi nañ ko jox cëram ci enceinte familiale bi enceinte familiale bi nañ diminuer conflit yi am. ci relation de couple yi parce que boo gisee thématique bi action humanitaire les droits de l' enfant avant parce que dañ ni en cas de alimentaire hmm, humanitaire donc dañuy jël les de l' ñu teg ko devant pour protéger l' enfant xamul tax parce que xale bi couche vulnérable la xale bi boo ko protéger mais yaa ngi raté sa nation donc aujourd'hui li ñu déploré mooy li nga xam ni mi ngi xew ci xale yi xale yi dañ da ngay dégg ñu ni xale tel rey nañ ko sànni nañ ko tout le monde est interpellé donc qu'on soit très vigilant ñu fexe ba bu vacances jotee ñu indil xale yi yeneen occupation vraiment ñu fexe ba mettre en place des instances yoo xam ni xale yi dinañ réunir di di xalaat ci développement de la cité à bas âge ñu former ay jeunes leaders yoo xam ne dañ leen di accompagner donc boo demee ci municipalité boo gis ak quartier boo gis am na fa des instances de ces enfants là par rapport à la participation ñuy discuter ci yenn problématique ñun aussi ñu ñëw en tant que partenaire di leen jàppale. aj mag ren jile ñu ngi koy wàcc bu baax a baax délégation bi ñu ko dénk nag mu ngi woon ci diwaanu Thiès ka ko jiite di Abdou Aziz Kébé ne jël nañ bépp matukaay ngir yëpp jaar ca yoon waaye muy wo ujaa ci nag ñu demee ba foofu nañu wàññee ñaxtu yi bu baax a baax rawatina bu ñu eggee ca mun na ak Arafat reportage Cheikh Anta Diop Seylatia mbooloo mu takk ci saal bu fees dell ñii di ay ujaaj fas yéene dem fële ci màkk ak agence yi nga xamante ñoom ñooy yóbbu ujaaj yi nekk ci diwaanu Thiès daje woon doon sottentey xalaat ak laaj ak tontu jëmale ko ci ki nga xamante ne moom moo jiite délégation générale bu pèlerinage bi am na ay yóbbal yu mu jox ñii di ujaaj yi voyagistes si mat nañu ñaari téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom ak juróom benn fukki alaaji ak ajaratu ñi nga xam ne ñoo ñuy jàppale ñoom El Hadj ci aj gi ñoom ñooy yóbbu fukki junni yu teg junni muy onze mille li ci des délégation bi moo koy yóbbu loolu yi tamit bëgg-bëggu kilifa gi la le président de la république waxanteeg ñoom li nga xam ne moom la mu yaakaar ne bu ñu ko waxanteeg ñoom seen aj dana gën a baax bu ñu teg alaaji bi coono boo xam ne mën na ñaax l'image du Sénégal maanaam mu nekk way wu rafet Abdou Aziz Kébé yokk ci naa ren ji de ñaax nañ bu baax pèlerin yi ñu topp digal yi nga xamante ne moom lañ leen di jox at yi passé doo dégg ñu ne la avion bi doo dégg ñu ne la lekk gi Madina wala Makka doo dégg ñu ne la non bu ñu ñëwee mun naa rek la ñuy commencé di wax lekk gi neexul lekk gi doyul lekk gi ñëwul à temps ma bëggoon aussi ñuy communiquer dans la vérité lekk gi mënta doy ah mun kuy dem pour retraite spirituelle da lekk liy jëriñ sa doole. mais du da ngay lekk li nga xam ne moom la sa bakkan bëgg. lekk heure bi nga bëgg a lekk aussi ku nekk ci tarbiya ah mun naa nous sommes dans un régiment. alaaji bi tamit du dafa nekk de mauvaise foi dafa xamul rek. ginnaaw Thiès délégation général au pèlerinage dem nañu Tivaouane ak Pire fas yéene koo jeexale Touba ak Kaolack. Serigne Cheikh Thioro Mbacke moom nag la ñu tuddee màggalu Touba ren euh, gile euh, njabootam ak ñii di ay taalibeem nag bëgg gën a xamle euh, ku tedd kooku li ak askan wi moom nekkoon rak ci Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rasoul édition ren bi nag ñu ne lépp loo xamante ni bind na ko ndax bindkat bu mag la woon dinañ ko gën a wanewaat ak génération bi nekk jamono ji ngir ñu gën koo xam ko ngir ñu gën koo xam moom Serigne Cheikh coro Mbacke dañ ciy déglu Serigne Moustapha organisation bi ci micro Alhassane Ba ak Thierno Laurent Mendy. salla alayhi llahu fi l ali wa sahbi wa man walahu dayhu lazi dayahani min alida alayhi taslima mubin màggal Tuubaa gi ñu jëm dañ cee jagleel benn journée boo xam ne dañ ko jagleel sëñ Cheikh Thioro ñi nga xam ne nag ñoo. sëtoo ci sëñ Cheikh Thioro ñëpp ñi bokk ci famille bi ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw ñuy def ay ndaje fenn fu ci nekk foo xam ne ku bokk ci njaboot gi ma nga fa ñëpp sol seen dàll waa ko dem fekki ko nemoon nemmeeku ko saafoonteeg moom xamal ko waajtaay wi nga xam ne ñu ngi koy waajal bu rëy bi nga xam ne moom sëñ Cheikh Thioro ku wax nga xam-xam kon ndaje la moo xam ne daal bu nañ faa fësal xam-xam bu yaato yaato yaatu rawatina xam-xam bi nga xam ne yàlla mayoon na ko sëñ Seex Coro ndax sëñ Seex Coro daa bokkoon ci kàngami yoonu murit bi liggéeyoon ci liggéey bu ama am solo moo tax nag ñu bëgg koo fasal bu baax a baax bind nañ ci moom ay biographie am bind nañ ko taarixam wax ay jaar jaaram xamle mooy kan fan la soqi ko euh, fan la jàngee ak euh, digganteem ak Serigne Touba ni mu demee woon ak digganteem ak njaboot Serigne Touba gi ak digganteem ak yoonu murid yi taxawaay yi nga ci amoon yëpp bu soobee yàlla képp ku teew ca bis ba dina dina dina leer nañ sa bopp dinga ko gën a xam bu baax a baax. ñu soobu ci tàggat yaram benn ponk la kii nag dafa bëgg fay naar bi xoromam muy Atanas Tendeng nekkoon international de football gàlloo woon numéro 10 ci équipe nationale dafa ubbi benn académie ci diwaanu Ziguinchor ba mu nekk ngir fexe ba képp ku bëgg a fës ci wàllum euh, football discipline boobule mu yomb mu defoon ab euh, conférence de presse ngir siiwal euh, kon initiative boobule mu amal Atanas Tendeng ñu déglu ko ci micro Boubacar Diassi ak Lamine Mandiang tey lañu ñu fësal véritablement xalaat boo xam ne yàgg na en réalité ci sama bopp parce que bi ma ci xalaat dafa fekk man aussi ndaw laa woon maa ngi yoon ci terrain yi di di yëngu voilà donc euh, tollu woon benn moment boo xam ne maa ngi nekkoon ci pratiquement fin de carrière et ensuite euh, ci laa commencé di xalaat tey ni ma mel nii ci suma askan yi du yàgg dinaa génn terrain yi est-ce que bu ma génnee terrain yi laal ban taxawaay laa war a mun a am pour continuer amal sama askan njëriñ c'est vrai que processus bi dina continuer dina moment boo xam ne xëy na dinañu soxla yaatal effectif bi mais pour l'instant je pense que dañu caler ne dañuy travailler ci ñaari catégorie muy xale yoo xam ne ñu ngi en tout cas douze treize ans catégorie boobu caler nañ ci vingt cinq gosses ensuite am na beneen catégorie bu 14 15 ba 16 ans kat euh, nañ ci aussi 25 gosses donc en total ñu ngi ak 50 gosses yoo xam ne notamment ñoom la ñuy paree entamel processus bi en attendant ñu gën a stable ci suñu doxalin xool ndax mun nañ ubbiwaat yeneen brèche. léegi léegi ponk bu mujj ci xibaar yi li ci yéene kaay yi ñu ànd ceeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf fast track di modd wasa wasa gi Macky Sall woote l'observateur na nañu justice bi ma nga ca ubbil yéenekaay bi journal bi bind na ne waa mu di division investigation criminelle tàmbali nañu seenub liggéey ngir leeral coow li ñuy wax ci mbiri contrat pétrole yi ci réew mi njiital alliance Sauvo le Sénégal di Babacar mbay Ngaraf moom la ñuy dooree journal bi nañu bu yëf yi soppikuwul tey jii ci yor yor gi maanaam neuf heures ca la war a dem dikk jàkkaarloo ji ak gaay yi commissaire Ibrahima Diop yi keroog samedi ci ngénte lu mu nekkoon ci Géejawaay fa la ko convocation bu division investigation criminelle bi fekk ci police bu Géejawaay ca la ñu jaarale convocation bi l'observateur nañu moom Babacar Mbaye Ngaraf nag wute wute ku ci xam lu bare ndax yàgg nañu ko auditionné ci mbir yi fekk Babacar Mbaye Ngaraaf dem na fa juróom-ñaari yoon la Sénégal nañu wax ji ñaar la mbiru Petrotim ak mbirum rapport inspection générale d'état bi senn te ñu ne waruta senn waa division investigation criminelle ak gendarme yu section recherche dañu séddoo enquête bi lu aju ci wàllu édition yi waa dig ñoo ko yore lu soxal wàllum technique bi ñu teg ko ci loxoy section recherche coowal Aliou Sall ak Petrotim direct info mi ngi ñuy wax ne Clédor Sène sulli na ci ay mbóot yu yéeme ay révélation yu garaw ci xët mu njëkk Vox Populi El Hadji Cheikh nu yëkkati fay kàddu jëmale ko ci coowal pétrole bi ñuy wax ci réew mi xalifa bi di fa wax ne bari na ci àdduna bi ay réew yu tàkk yoo xam ne coowal pétrole moo leen taal waruñoo nangu baa ñuy seetaan ba lu ni mel di am ci Sénégal Sénégal ressources naturelles yu fi mbokk yi di jéggalu bu baax a baax ci jafe-jafe yooyu lay ci wàllum technique ba tax ba du ngeen mën a déglu li ci yéenekaay yi ba mu àgg euh, di leen sant di leen gërëm ci àndandoo beeg télévision Futurs Médias fi la ñuy yem ci xibaaru digg bëccëg yi bu 19h30 jotee incha allah rédaction bi dina fi ñëw yaatalal leen yeneen xibaar di leen ñaanal ngeen doon jàmm.